Eh, ñu yar leen si diine yar leen si lislaam yar leen si tarixi cheikh kon yal na yàlla defal leen mag ñoom yal na yàlla fee leen mag njiita xale yi yàlla yàggal leen fi اللهم لك الحمد أنت الرحمن اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk waa Dak Médina maa ngi leen di bëggee di leen ndamoo di leen safoo ñu ngi fi nag ci jumaay Gueule Tapée ñu am fi ab tiis boo xam ni ñu koy wax euh, Ousmane Diop di imam di doom ci suñu maam Yaxya Diop moo génn àdduna ñu dugg ci biir rek laaj ay quelques témoignages ñu ngi koy jaale famille bi yëpp di leen masawu ñu dugg ci biir yaa laaj témoignage rek. mbokki Dak medina ñu ngi leen di nuy di leen ziar di leen bal àq ñu ngi fii ci pencum jumaay Gueule Tapée nga xam ne. mooy jumaa ji nga xam ne sunu wéyjur bu tedd bi génn àdduna tey di alxaaji Ousmane Diop Yaxya bokk na ci imaam yi bokk na ci ñi amoon taxawaay bu rëy ci jumaa ji ñu ngi toog alxaaji ak alxaaji Doudou Gueye Dame di chef de penc xot tey dellu bokkaat ci association pour la rénovation de la grande mosquée de Gueule Tapée toog ak président bi Mansour Diop di saytu liggéey bi waaye tey bi ñu xëyee ci lundi 1er mars 2021 bi dañu toog rek am xibaar bu diis bu tiis bu rëy loolu bu dal ci seen kaw muy seen mbokk seen xarit seen kóllëre seen àndandoo seen am di jàmm di lépp ci ñoom di alxaaji Ousmane Diop Yaxiya ñu ne leen génn na àdduna ñu toog alxaaji Doudou Gueye Dame doon ko laaj suñu doon wax ci kan mooy imam alxaaji Ousmane Diop Yaxiya lan la ñuy wax asalaamaaleykum ñu leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen jaale suñu boobu fi jóge imaam la woon boo xam ne daana wax ci sunu réunion bu nu toogee max moom mën a ko jinga néegu yàlla booy wax ñi da naan néegu yàlla mu mel ni néeg bi kenn moomu ko wante yàlla dina nattu nit mu yoreel ka néeg bi nattu boobu moom lañ tegoon alaaji Ousmane Diop dem na ba mujj gi nit ñi dinañ naan waa xanaa Ousmane moom moom jumaa ji déedéet moomu ko mais yàlla moo ko ko teg tegin bu rafet teg boo xam ne ne dara di nga di nee naa la quatre heures et demi mi taw mi ngelaw yëpp boo xoolee sa montre si heure boobu moom lay nodd ay at kon boog mag ñi fan ko tegoon fa la toog ba mu xëy génn àdduna El Hadj Ousmane yàlla di nga boo ko waxee ne que sax bu danga feebar bàyyil xale yi bàyyil bàyyil xale yi jël relève moom mun a déedéet du ma déedéet sonnu ma de sonn ma de mën a ko waay mais sonn nga yow da nga war di joxañ rek léegi nii li ñuy dagg mu ne déedéet sonn ma man daal bés bu nga xamee ne teg nañu sama jaat ci jumaa ji koro lay doolu di nga tey loolula yàlla nar indi mu jaat boobu mu doon wax dafa mel ni yàlla daf ko ko wan ndax waxam yëpp loolu woon e kon gël tàpp yëpp ñoo ñàkk jumaa ji ñoom ñoo ñàkk e di nga léegi doomam moom moo doon nodd léegi si ñaar heure am la heure bi nga ñëw heure la heure boobu daan nodd cinq heures moins mu nodd quatre heures et demi mu nodd kon boog kooku yàlla na ko yàlla yërëm te xel mën naa dal foofu ndax nodd li ñu wax si nodd dafa rëy ndax nodd ni mu gën a ni mu gën a ni mu gën a demee bu ñuy di ko gën di dégg yiw yi yiw yiw yi topp la kon dañuy dellu rek ci aaya ba dee moom ci betteel rek lay ñëw dam pour wax ci Ousmane nag tey du du yomb mën naa wax ci mbokk gi bokk ak dam ci lu mu koy parce que ñëpp nañ sama yaay moo jur parce que moom la féeteeloo kon dama naan ñoo bokk ndey ak baay bu ma wax ci mbokk gi damay wax ji rek ku bëgg la Uf, na njabotam gu baax a ba a baax aar leen te aussi loolu mu ngi ko jële ci kilifteef Ousmane papam rek la xam bi mu jàngee gànnaar ba ñëw ñun lu fu ne jaar nañu fa ñii di uti ñii di jàngi wat ñii di uti liggéey mais moom mu nekk ak papam suba ak ngoon moom rek lañ ko xamal papam rek la xam référence am yépp bu waxee bala muy daaneel Baye ya nee na loolu rek mooy référence am jaamu na baayam topp na baayam ba baayam gërëm ko kon dem na ak ngërëmu baayam man loolu laa mën a seede loolu mën naa ko set si njaboot gi njabootam gu tamit moom toppatoo na leen amul bés bu mu dul def tuuru njaboot gi bés bu ne mu ngi gëltàppe mi ngi faas di leen nemmeeku

ma ne ko jëlal vingt millions yi nga dugal ko ci compte ñu xool nu ñuy def fa la association bi soo sosoo ñu wootante ñun ñëpp ne kan mooy doon président bi ñoom ñëpp ñu joxoñ ma bés boobu sax siisu naa ba du Gueye mii ak Birago wañ nañ sama loxo bu duggee ak Birago wañ na ma yaay jiite foofu la association nga xam ne kon association bii ñuy defar jumaa ci moom la sosoo moom moo jël xaalis bi dugal ko ci compte ñu ubbi association bi monter suñu association te bés boobu ba léegi loxoom jugu ci luñ ko jox ci jumaa ji jox na ma ko dugal naa ko ci kees gi ak lu nit ñi mën a wax luñ ko jox ci jumaa ji jox na ma ko dugal nañ ko ci kees gi nga xam ne kon ba léegi may wax ak nii loxoom jugu ci woon loolu moom rek lañu mëna wax té nit nañ nak wax nañu nodd ak julli lool nak loy def sa bop imam bo xamné moy nodd semaine dernière dafa am kuma wo yow mi sax ya ma wo ne ma ñenti fan ngi ni dégg ñu ma ousmane mané la dal leen sen xel dafa xawa tawat mu am ñeen ñuma won ne ma lu xew ousmane nodul ku ñuy jël référence ci non nodul tay koku bëgg na jakk té te heure yëpp moo ko daan jiite. du yomb nag ci man ndax Ousmane yàlla moo ñu boole woon mu nekk sama mag nekk sama xarit usmaan mësul def ci àddunaam bi ñu yàlla boole ak léegi lu mu nit nettali daf ma daan wax papa ma ne ko ah, mu ni ma dama lay sóoraale samay jëf ndax bëgguma mukk nga dégg ma sa xol metti ci li nga ma déggee depuis ba ma ko tuddee doom ba léegi papa la may wooyee dootu dootu dootu ma ni baara mu nekk nit koo nga xam ni ñun dañu war a jël ci usmaan royuwaay ndax lan royuwaay ndax Ousmane ku am kilifa la ku am kilifa la su suñuy temps ñun ñëpp ni ko Mansour waxee dañu dawoon di wuti alal di wuti liggéey di wuti jabar di lu nekk ñu di ko wuti Ousmane di liggéey Air Afrique démissionné ñëw topp ci papam bi mu démissionné ñëw papa ji da ko wax loo bëgg a def léegi mu ni ko xanaa ànd ak yow mu ni ko ah alaaji Ousmane nga bàyyi sa liggéey ndax ànd ak man mu ni ko waaw loolu du lu may du lu may inventé lu ma fekke la lu dund la depuis booba ba léegi Ousmane day lekk day dañu jabar yi dañu koy tegal palaatu lekk bu téléphone bi sonné rek Ousmane Sané na ko usmaan Ousmane dawalul kudul papaam kenn du sëriñam kudul papaam kenn du xari tamit kudul papaam papaam mooy royukaayam papaam la am papaam la gëm jàkka ji jàkka ji nga xam ni papaam ma ko tegan ci loxoom daf ma ni baara ma ni ko am ah, mu ma bu ñu ma def ci àdduna lu lu rendi ma du ma tee dem ci jàkka ji dinaa taxaw ci jàkka ji ba kera may wuy ji sama papa lu ne xew na fi mais mu nekk nit koo nga xam ni nit ku respecté kilifaam la nit ku nit ku nit ku kilifaam gërëm la asalaamaaleykum mbokki Dak Médina ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi ba léegi ci xew-xew bi xew gël tàppe di génn àdduna imaam alaaji Ousmane yax Yaxya kii ñu taxawal nag mooy alxaaji ma Sakho Diop nga xam ne Alaaji Ousmane mu ngi ko tuddee woon soppeem ba Alaaji bu saaxoo moom la ñu bëgg laaj lan la ñu a wax rek ci lu gàtt woy juróom. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp te di baal ñëpp àq Ousmane moom wax si wax si wax si moom jafe na jafewul nekk na kilifa boo xam ne daal kilifa bu kilifa kilifa bu baax la woon kilifa bu yiw ku bëgg njaboot ñun daal. dañuy se del sant yàlla rek te xam ne li yàlla li naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla moo ko andi woon yàlla moo ñu ko gën a soxla jël na ko kon dañ koy ñaanale fii mu jëm yàlla na ko gënal foofu fi mu jógee te am nañ si moom yaakaar bu baax a baax a baax ñu ngi dellu sant yàlla bu baax di ñaan di ñaan yàlla daal yàlla teg si njaboot gi loxo yàlla mu yàlla yokk sut yokk sutoo njaboot gi yaakaar bi mu amoon si njaboot gi yàlla bu yaakaar boobu tas waaw loolu daa am lu ñuy wax si si si moom waaw gis nga li yàlla dogal fi nga jëlee kàddu di daanu la sa doomu turandoo ñëw di imam xaasim saaxo bu ca déem nga xam ne sa diggante ak sa papa ak sa turandoo lan nga ñu lan nga ci mën a wax lu ndaw rek. waaw paay bu saaxo moom daf sama turandoo dafa nekkoon dafa nekkoon kilifa boo xam ne sama wële maam la woon wële maam yax ya ñoom ñaar nekkuñu woon nekkuñu woon ñaar kenn lañ woon mu jël mu tuddee ma ko. Paa bu Sakho nekkoon kilifa boo xam ne nekkoon si kilifa kilifa kilifa kilifa kilifa kilifa la woon si si du ma wax Sénégal Sénégal du bu Sakho ku ko xamul dégg nga turam. waaw nekkoon kilifa boo xam ne daal kilifa bu baax la woon. ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla tax seen barke. ya sebab barke yonent ya, bi kon nak ñu ngi delu dila massaw ya ak say frère ak say sœur yépp uh-huh. ci xew-xew bi nga xamné yeen rek bokku len ko uh-huh. yeen dal sant ngeen ëppalé nit ñi ci mom uh-huh. waye alaaji Ousmane alaaji Ousmane ñëpp la imam imamu ñëpp la ca mbax gaak ci wëllër geek lepp yalla yalla jéggal ko yalla yalla yàlla ko ñu ngi delu di len massaw tamit di bég ci sa toxay bi ndax it tey mu dal sen kaw te dencaguñ ko sax nga ñëw bëgg a ay kaddu ci mom loolu yombul ci ñëpp kon tagat na len ci mbax yalla yalla saxal len ci te yalla fay ko yu fa tabarakallahu bég moo xew tey fii ci pencum Gueule Tapée nga xam ne jotaay bii ak barab bii min na aji dem ji te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ba tàyyi ne nit bu ngeen ko gisee muy julli seedeel leen ko as njullitam waaye kooku ndax dina julli wala du julli ñëpp xamoon nañ ne salawaatul xam si yëpp fii ci biir jàkka ji la ko daan jooxee waaye lu ma juróom ba juróom benn fan Gueule ñu bari ñu ngi naan dégguñu alaaji Ousmane Salaatu mbaa jàmm la kon nag sunu demee ba yow sa askan wala sa tur wala lañ lay askanale ci jotaay mooy yow nodd wala jiite ñu dem ba réew mi yépp fa nga dëkk ñëpp naan diw de noddul tey mbaa jàmm loolu mooy askaneele sa bopp ca jàkk te yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne yëpp ëllëg yomal xiyaam noddokat yi seen yàlla yàlla dafay guddal seen loos yàlla na ko ca yàlla boole waaye la yonent bi wax tamit tam ci imaam yi nga xam ne ëllëg yomal xiyaam mbooloo mu nekk yàlla daf lay woo ci sa turu imaam moom it yàlla na ko ko yàlla dogalal noona ci daraja yonent bi ñi bëggoon wax ñëpp xajuñu ci ndax papa Ousmane li sunu wéjur alxaaji du Gay daam wax Pape Mansour Diop Yaxya wax ko alxaaji Baara Faal wax ko mun nañ ko doyloo ba beneen jotaay ndax li ñu bëgg a wax yépp nu ko tegee kenn ku ci nekk loo xam ci moom ci lu rafet loo xam ci lu moom lu baax foofa jotaay ba dina ko maye nga wax ko kon nag li ñuy waxaat rek mooy yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla xare ko ajjana wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, ñu yar leen si diine yar leen si kon yal na yàlla defal leen mag ñoom yal na yàlla fay leen mag njiita xale yi yàlla yàggal leen fi